yokkute bu am solo lañu nemmeeku jamono ji ci njëgu ceeb bi bu ñu sukkandikoo ci Souleymane Diallo di jaaykat fare foofe ca marché bu Grand Yoff njëg yi fan yi dafa yokk fan yi yokk nañ ceeb bi waaw ceeb parfumé bi moom yokk nañ ko waaw parce que mu ngi doon jar vingt mille cinq cent fu mu toll nii ay vingt deux mille lay génne bu mu toll nii bu ñu ko mun a jaay ay 22500 lañ koy mën a jaay wala 22250 kon bu ñu sañoon ñu wàññi ceeb bi. ñoo yofal bagage yi ñu mun cee jot. donte sax seen bërëb benn la kii di bay si la moom nee na nemmeeku si ab benn yokkute. waa ñun moom ci ceeb la ñuy yëngu te yàgg nañ ci waaw mais nag euh, instant moom prix yi yokkoogul loolu ndax ba léegi parfum bi mu ngi fi mu nekkoon euh, non parfum bi tam ba léegi mu ngi fi mu nekkoon entre mille cinq cent seize bu dee parfumé bi itam entre euh, vingt et mille cinq cent vingt deux mille la nekkagul. waaye nag seetlu na ni rek gis yenn catégorie ceeb doon na lu jafe lool. kon nag moom bay boo Sénégal yi teel a jóg préparé ko ah, nu ñu mën a def ba trouver solution ba nga xam ne dinañ xool beneen bunt bu ñu mën a amee ceeb ñu def ndax fii Sénégal ceeb moo fépp ci lu ñu lekk te su manqué rek problème te su fekkee fi nga ko doon jëlee a ko faa amee ah, problème day am. ñoo ngi ñaax nguur gi mu jël ci ay matuwaay balaa impact yi di gën a bëri. waa am na façon ceeb yoo xam ne nii commencé na manqué pour nga am ko moom jafe na ku mel ne Royal Umbrella instant yi nii dafa xaw a manqué trop na yeneen façon ceeb yi fi nekkoon yoo xam ne itam dafa raar di àddu itamit ci ni ñu war a doxalee bareek Sénégal itamit moom boppam ci wàllum dund maanaam am lu ñu duppee souveraineté alimentaire xam nga solution moom boo koy créer da ngay commencé sa bopp am nañu suuf bu yaatu ñu fexe di bay ceeb di ko mën a ceeb bu ñu lekkee Sénégal mais saa boo dépendre ci réewum jàmbur moom soo amee problème yow nga am problème te xam nga problème fu ne lay jógee ndax guerre bi lu ne ngay gis te nit ki moom bala moo laax jaay day laax lekk sénégalais boo amoon loo xam ne daf ko soxla du ko jaay kenn da koy lekk bu demee ba lim soxla mat nga xam ne am na stock bi mu war a dundee si at mi yëpp ci lay door a dem mën a jaay yeneen réew. li doon ab situation bi leen jaaxal ndax yombalul benn yoon seen diggante ak client yi ñi si ñaax nguur gi bu fekkee ni exportation yu indo arrêté moo waral li mel nañ ci jël ay ndogal bala mu gën a metti